ministre yi nga togal yépp ak ñi ngeen andal yépp di leen jox sama love di nuyu sama mbokk député yi di leen ñaanal yalla yal nañu yalla may ndam tay ñu boole xol yi rek lu ñu bëgg dañ koy am monsieur le ministre man minak nak tay man nga wara waxal yeufi mom moom kenn wax tay yeufi sama yeufa man artiste bi man man mi wone aaru senegaal fépp ci monde bi laa wax maa taxaw fii di wax moo tax tey ñépp war ma déglu ba may doon xale fii ci réew mi am fukki at ak ñett touriste yi dañoo meloon ni weñ ci réew mi ndax lan aaru senegaal lañ doon seetaan si loo leen suqali ci réew mi bu dul aar bi suqaliwu leen dara xam nga lan la touriste yi am tuba bi di setan ci fi ci rew mi moy ar ak gore ay la gii lu ñu wax gore ay lan la ni wax ba ma gën a dama daan def akay 15 fois ci bés bi touriste yi di wad, 100 personnes 100 personnes ba muy quinze fois ma dem fu ne ci adina bi monsieur le ministre man nii nga wara waxal ñu ànd seeti ministre de la culture ànd dem seeti directeuru bale yëpp ñu suqaliwaat aar bi artisanat bi mën a dox dama daan fàttaliku bu ñu musaan tukki li ñu may fay man li may jaay ci aar moo ëpp li ñu ma daan fay ndax damay lal sama taabal fecc ci théâtre yu ëpp yii wane culture Sénégal bu ñuy tëj ñu jox ma drapeau Sénégal bi ma téye ko ndax maa ca gënoon a nekk xale mais léegi nii touriste yi ñëw fii xale yi lañuy ñëw di jël jigéen ñi di yóbbu di leen toroxal di leen jàngal lu bon ci diaspora bi laa dëkk nañ leen suqali aar bi artiste ci réew mi sonn nañu Pélé Senghor gii la ñu nekk soo leen gisee danga leen di yërëm te ñoom ñoo mën a indi touriste yi ci réew mi aar bi du leneen aar bi da sol sa mbubb mu rafet tailleur ñaw ko touriste ñëw nga jaay ko ko trois cent mille cinq cent mille amatul ci réew mi tubaab yi jigéen lan fiy wut si seetaanatuñu dara ma lay ñaan nag man mii ngay waxal ministre de la culture ñu dem seeti bépp bale bu nekk fii ba Abdou Diouf jógee ci réew mi la aar dee parce que Senghor dafa bëggoon aar fu président Macky sàll dem aar war na ànd ak moom muy séeréer tukurool joolaa balant mais lu ma la ci feccal nga yuuxu fecc rek laay def <laughs> moom rek laay def lu ma wax fecc laa gën a man kon boobu il faut ñu dimbali artistes yi pour li nga bëgg yow mu dox artistes yi rek ñoo ko man nga ànd ak artistes yi ñu liggéey réew mi indi wa nyugis ñu gis lu rafet li ñu am ci réew mi du ay saga rek lañu am du ruube rek lañu am am ñu rafet lu tuba bi mëna a ñëw seetaan si fii ci réew mi benn goré Island a ngi lu ñu wax ñu na goré Island lan mom lañuy jaay mom la tuba bi bëgg ñëw xool war ngeen ko defaat benen reportage bo xamni man mangi ngi dëkk Las Vegas nee la man ngay waxal fa touriste man fa dëkk communiqué ak Las Vegas maa yor caabi Las Vegas man man la ko meeru Las Vegas jox ne ma du whatever you want kon man mii nga war a waxal yëf yi sama yëfa tey tëj leen yëf yi <laughs> man maa moom yëf yi tey ndax ci touriste la ñuy wax te xam naa lii indi tourist ci réew ndax mooy sama liggéey man duma politicien man makiste laa man artiste laa man damay jaay Sénégal looloo ma yóbbu Amérique may jangale fecc ci école yi gëna mag ci amerique boo nee Kura Njaay dañ nan la best dancer in the world waaw boole tok di len jangali wolof boole ke di leen waxtaaru Sénégal ak li am Sénégal mais artiste yi dunduñu ko monsieur le ministre il faut que artistes yi ñu dundal len fi ci réew mi sama mbokk artiste yi ñoo ma salut